di rafetlu seen jéego yi ngeen jóg ñëw ba ci noonu di sàkk ay kàddu yu jëm ci ab soññee gannaaw bi nu ziyaara Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla yàggal ko fi te ko mboolem lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko moom di ziyaara itam bokkam yi mu bokkal Serigne bi yëpp. ak mboolem taalibe yi sëñ Tuubaa yi ak jullit yëpp noonu yi nga ko waxee rek xidma moom jàpp naa ne benn murit boo naan bu ko ci xidma mu di ko nangu doom xanaa bokk yéen rek lay doon waaye ku ci nanguwut a bokk amut ndax xidma mooy lépp ci yoon wi kon nag ndokk bi ngeen nu ci boole bi ngeen nu ci nangoo boole ndax liggéey la boo xam ne yàgg naa leen a wax ne lu ku ci bëgg bokk rek bokk ci sëriñ bi mooy tànn ñu ko doy mu dugal leen ci liggéey boobu yi kon nag la ko gën a ñor muy jumaa ji la gën a ñor muy julli juróom la ko gën a ñor mooy alxuraan la ko gën a ñor mooy weeru kon jëmmi lislaam lañ leen dénk te loola la koy firndeel mooy sëriñ bi ba muy wax jumaay Touba ku am bët yu neex du dugg sa bopp ndax booba dëkk bi ñetti guuxu ndox yoo yoo naan képp dalay të ndox amu fi aw yoon amu fi ak gott la muy wax jumaa ji ni mu nar a rafete ak néeg la boromam may jumaa ji ni muy mel nga xam ne bu doon ci zahir da nga naan defar nañ maquette bu bon kooku ba mu gis ko ba xam ne muy mel waaye boobu ñi mënta dégg ay waxam da leen di jaaxal waaye ci yooyu jamono la waxoon ne sama jumaa ji nag bu noppee sëriñ bu soobi ak borom saam ñoo ma ciy jiiteel kon waxe sëñ bi wax ji naqaree dégg la moo ne ba nëgëni day gisaguma ku ci jiite ku ñaar ñooñu doonut ismaam buso buso yi ci ne yëpp suñ buso bi seen maam benn sëñ Maamun mii nga xam ne mooy jiite mooy ji mooy imaam ju mag ji di jiite ajjuma sëñ Mbàkke Buso moo ko jur sëñ Buso bee ko jur sëñ Aafe ak sëñ Baara seen ñaari waajur ñoo bokk lépp te sëñ Aafe mi bokk soxna aw Buso lépp di doomi sëñ Buso bi moo leen jur waaye yëmu ca borom saam ji day feeñ ba ci seen seen néegum ndey sax ñoom ñoo ñu seen ndey borom saama ko jur waaye ba ci ñi ciy naafile boo seetloo sëti borom sa am lañ kon jumaa ji ba na gën a génnul ñaar ñi suñ bokkoon suñ bosoo bi ak borom sa am ñoo may jiital sama jàkk ji waxe sëñ ñàkk xam lam lam jubloo wax waaye waxam jëpp noonu la mel loo gisagut wala loo xamul lam ci jublu waaye lu mu wax lu mu am ba noppi la lu ko borom may ba mu teg ci bëtam di ko nettali kon nag ku am xaasi bokk ci ñu koy liggéeyal ci jumaa ji war ngaa yàlla bu baax a baax ndax moo la tànn kon nag noo ngi leen di tàllal loxo ci liggéey bi yéen kenn du leen soññi yéen war a soññee waaye nag sañ nañoo soññi ñiy ñëw ngir ñu déglu leen te yam ci seeni i ndigal tàmbale ko suñu jëm mi damaa jàpp ne daal li alquran di wax ne in tansurullaha yansurkum yàlla soxla wun dimbalul kenn waaye day wax ne dimbali leen yàlla mu dimbali leen loolu mooy lim teg ne bu ngeen ko defee mu jox leen dimbalam aw leen ci may kaw lay mu mën leen a dimbale waaye sëñ Muntaxa it fii jamono toll mu nangu loo xam ne jaaxal na ñépp te bëgg sëñ tuba ak yërëm taalibe bi ak yéene yéene leen ñu ñëw ci sëñ Tuubaa moo tax mu gàddu lépp war naa am noonu itam lu ñu ko fayee mooy fexe ba mu am ndam fexe ba kenn du jam yoon wi fexe ba kenn du xas yoon wi kenn du mën a teg dara loo xam ne ci daru murid yi nga koy teg te fekk dëgg la te fekk dëgg la luñ sos nag kenn bañu ko waaye loo xam ne xam nga ne murid yi sàggan ba mu am loolu moom jàpp naa ne murid yëpp dañ maase xeex ko ba du am loolu nag la ci jiitu mooy bépp murid buy ñëw defal ci sa xel mii ne yow yaa yan responsabilité bu rëy rëy yow mi ñëw Tuubaa defal sa xel ne da nga war a set wecc set sa bopp ci biir ak ci biti ba fii ngay ñëw lu set wecc fi ne te doo fi indi lu koy taxal ngir liggéey la ko Sëñ Tuubaa loolu nag pas-pas moo koy lal ci saahir si nag nga déglu ndigal li sëñ bi wax ne nañ cay déglu kër docteur takk masque yomb na koo xam ne bu ñu laajoon sa bakkan nga joxe ko ñu la takkal masque rek raxasul raxasul mooy setal rek del set tey takk masque loolu yomb na sëñ bi ndigal li yomb na lool nañ koy def ngir dimbalee ko sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom lañ jënk liggéey bii kuñ ci wax dara bu ca teg baat xam ne sëñ bi la ko wax ndax sëñ bi moo leen xool bañ bañ doy ko mu ne leen teg teg naa leen fi luy tax mbir mi mel na mu war a mel bu leen ma ca déglu seetal na mu baaxee ñu ànd ñoom ñëpp ne ko nii lañ xalaat ne mooy baax mu leen fekk naa leen ci. kon nag murit bu ne boo ñëwee ba ci ñoom jàpp ne waxoo ak ñoom sëñ Muntaxa ngay waxal buñ la digalee digaluñ la sëñ Muntaxa lay digal kon kuñ ne yemal fii yemal fii kuñ ne defal lii defal lii bu ne laa dugg nga ci barab bi sa pas-pas na la may fuñ la ne yem fa nanga fa yem bul jaayu xiir ba def loo wërta def bul laal loo wërta laal bul àgg foo wërta àgg bul def loo wërta def yi teggini barab bi dama leen ci jox mel misaal rek sëñ Bakki Bousso mi nga xam ne bi sëñ bi bi ñoppee gi sëñ bi ci zahir ba indi ko fii moo taxaw ci kanam taxawu te loolu martaba ak daraja mënu ko weesu xam gum xam sëñ bi ak weg gum wég sëñ bi ak xam darajaam dëgg dëgg dëgg tax na ma sa dugg ci barab bi soror bii tollu kër sëñ Saliou bu ma saa jógee Gédé bisub ajjuma karoot gi muy yor fële lañ koy ci wetu si kër Sëñ Abdu Xaadir lañ fay tekki fas bu dox tànkam bu dikkee ba ci foofu ci sooraat bi foofu lay yem toog fi du egg ci barab bi li muy siyaare daal delluwaat jëre mësu dugg ci seen maam yéen ñi sëñ aafe bokk ak soxna aw busa lépp ngeen war a xam li mu doon ci sëñ bi ndax sëñ busoo bi ay waajuram mbal gii la daa summi dàllam bu mosaa dugg ci dëkk mbal gi lii sumuy dàllam mosu fee sol dàll te ñooñu xanaa bu dee jege sëñ bi ñoo gën a jege bu dee xam sëñ bi ñoo gën a xam doomi sëñ Tuubaa yi itam li ci ëpp dawuñu àgg ci biir néew ma ñëpp di waaye li ma ci xam ñi ci ëpp ñu néew néew ñooy dugg ci biir sëñ Abdul Xaadir moom fa nit ñuy yem la daayam foofa lay toog jublu penku ñaan ñaan dem ma su dugg ci biir sax sëñ bi la xat li ma xam lépp guddi gàmm lay siyaare li ci ëpp te ca penku lay toog ca wetu tàndarma ga jàkkaarloog sëñ bi te day nekk ba guddi gi xaaj ñu bari duñ ko bàyyi xel sëñ Saliou moom bu weer bu at miy dee mu dem ba jub barab bi toog foofu waaye du dugg ci biir kon ñoo ñoom ñu xam sëñ bi sëñ fa lu ñëw na fi bis fekk toog foofu bari coow li bari mu ne mu ne yàlla na yàlla ci miin ndax miin loo miin yàpp ko te loo loo yàbb rek doo ko jëriñoo li ëpp na waay kon nag nañ xam ki ñuy fekk si mooy kan ki ñuy fekk si mooy ki nuy xettil tey ëllëg buñ ko ñàkkee lu baax lépp ñàkk nañ ko buñ ko amee lu baax lépp am nañ ko kon nag lu nu koy may nañ ko nañ ko bàyyi xel waaye raj laj loo bi coow lu bari li te xam ne sëñ baa ngi leen di dégg yéen ñëpp li mbooloo mi bari bari bari kenn ku ne la ngay wax ak la nga fas sab sab xol ma ngi koy gis ma ngi koy dégg te boo ñaanee moo lay tontul bopp kon nag ànd fi dal ak déglu ndigal ak yem fu ñu la yem loo nga yem barab bi romb ko rekk dem te teewlu sa xel ak sa xol doy na sëriñ bi gis na la loo ñaan bu ko sa pasal matee moo koy nangu soxla wut sa àgg suuf bu ñu leen nee bu leen toog yem leen ci ndigal bu leen toog bu ñu leen nee dem leen nee dem leen nee bu ñu leen nee def leen di def leen nii feneen fu dul fii kat ku fa dem lu ñu digal da nga ko def ndax doo ko sañ a bañ ndax dañ cee gàll ab yar fii nag ciy teggin lañ leen ko ñaane kon nag ciy teggin ngeen ko war a nangoo ak ci taali bi kuy wuy ci taali bi boo diggee xidma membre xidma ak ñañ àndal ci liggéey bi lu ñu digal na ko def ci màggal gi la ci jiitu mooy ku ne na am teggin yi Cheikh Mahamadou Mountakha boo dee gis ko ma takki masque war ngaa ruso dox te takkoo ci biir màggal gi ko jox jooju war ma ndegam dañ koy gis muy takk ku dugg ci jumaa ji takkal masque ku ko tëkkut bañ ne demal takki ko nag bu ca xuloo bu ca coow demal fexe ba am masque takk ko dóor dugg fuñ ne la fa rek yem fa ngir yàlla nañ leen dimbali yéen ñii ba liggéey bi yomb liggéey bi nag weesuur warmaal sëñ bi bàyyi xel sëñ bi bàyyi xel barab bi te xam ne fi la su liñ gën a bëgg tam tam gënanu lépp fi la ne ku fi ñëw noo mën a mel jikko joo mën a mel teg ko fële ba génn te xam ne boo fi egsee ki nga fiy fekk si mooy koo xam ne da am bis boo xam ne ñëpp dañ la bàyyeeg moom te moom rek la mën mën a xet di mu Sëñ Tuubaa ay waajur dañ la ba ay bokk dañ la ba ay xarit dañ la ba say njaboot dañ la ba te boobaa fañ lay dugal nga fekk ko fa rek ngay bëgg kon nag fexeel ba booy ñëw ci mu ami teggin akub yar tey dégg ndigal tey jëfe ndigal noo ngi leen di sant di leen gërëm di soññi taalibe yëpp di ñaan nag ci daraje Sëñ Tuubaa daraje Cheikh Mahamadou Mountakha mi ko fi nekkal ngeen ñëw ak jàmm fekk fi jàmm fii nag jàmm rek fi ne li nga xam ne xewoon na fépp di dox ba egsi fi mbooloo fu ñu nekk dara ne fa Touba mooy deuxième capitale waaye jàpp naa ne fi ñu ko àggale woon sax àggu fa te li fi ne ko nag set na kon na kuy ñëw fexeel ba bul taxal boo sàmmee si jëmm defar ko ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ba indiwoo ko fi doo ko fekk waaye itam ñi fi ne nañ xam ne nañ góor góorgóorlu ba téye seen bopp taxaw ci seen jëmmi bopp nag ba genn gan du fi ñëw jële ko fi ñaar rek am